simile. la xew ca France ke ah. doy na waar de tribune yéene kaay ne kañu toogal ca Marseille day di consul ba waaw moom la ñuy tuumal de ne daa génne awraam ba ca mbedd ma i la ilaha illallah ma ne la Tamsir Faye moomee waaw dañu koo tegoon loxo de waaye mujj nañ koo bàyyi waaye nag moom Tamsir Faye day daal dina koy weddi daa xam le carrément ne policiers yi nekk ca Marseille googu dañoo raciste boo dëxante ci mbirum xeet waaw dañoo bañ ko nit ñu ñuul ña grand place de en tout cas coow la bëri na ca Marseille googee de waaw Tamsir Faye day daa fas yéene nag dem kon ca kanamu procureur daal di kon porter plainte plainte sur quotidien Tamsir Faye day waaw moo tooñ wala dañ koo tooñ victime ou coupable Tamsir Faye ne man kay dañ maa tooñ wàllum racisme la de waaye danaa porter plainte de ca jamono joo jaye Toussaint Manganga ca kaso ba doomu Abdoulaye Wade ya terminé kaay ne ca kaso nga xam ne de foofee la nekk léegi mu am fokkoon juróom-benn weer laa ilaha illallah waaye nag yëkkati na ay kaddu de ca biir néegam bam ne xam le ne semaine bii di ñëw ni le dana xiifal grève de la faim Toussaint amul ndey la jaay doole la injustice flagrante ña fa ci teg seen loxo la leen war nag fi mu nekk ni daal mooy aate ñu bu ko defee nag dindi kon askanuk Sénégal gi lee et puis Macky Sall ci boppam man moom laay waxal na arrêté ñi nga xam ni kon moom la may yónnee mu may yónnee ay ndaw man doomu Casamance piir la damaa bëgg nag Macky Sall xam ne boo ko ma ak askan di xeet woowee nga xam ne ay warkat lañ boo ma ci ñooñu dañ may jënd ngir ma mën moom sama bopp am liberté loolee na ko day te jamono joojee Macky Sall nga woon Fatick Le Soleil yéene kaay ne ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay milliards la ñu fas yéene def dajale ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn ci ay milliards ngir siin googee waaw Macky Sall day door na kon pikiir ba perfusé na kon Fatick président Macky Sall ci tribune yéene kaay ma ngay défendre de ci mbirum pinut bi la waaw nee na nañ ñu bàyyi ñu liggéey il faut qu'on nous laisse travailler Aminata Diallo ci la ko tijjee yéene ne Macky du dem loolu la ñuy tere Macky du dem Macky n'ira nulle part eh député parti socialiste bi day nee na réew mi doxul fecceg way dee lañ fi gis Macky Sall bu yeboo mu jël téeméeri junni ci ay milliards jox Fatick wala Kolda du dem non Macky du dem xoolal ma àll baa ngi ni lée baykat yaa ngay kaas kaas bi kay day gën a yaatu ñoom nguuru Macky Sall gi ñuy bëgg a rey ak couverture maladie universelle te yow amul centre de santé du poste de santé dara ba dara booloo jeex yow boo waree jóge ci benn village dox kon ay kilomètres yi kilomètres yéeg ci saret ngir dem wasin am doom waa yow couverture maladie universelle googee anamu Macky Sall daal li muy def fi mu ay tournée rek lay def te loolee daa war jur dara waaye tournée mi du dara lu dul mbumbaay xumbaay dëgg kese la feet way dëkk bi doxul gonek parti socialiste gars yi samay kaddu dee yéeni kaay ma jama jàngi ne ko parti socialiste mën naa def Macky Sall candidat ci élection présidentielle comme ni ko ñenn ñi di waxee Aminata Diallo ne loolee du ma am jamais Macky Sall mën ta doon parti socialiste day danañu dànn Khalifa laa la wax akam jom akam fit Aïssata Tall Sall nag man Aminata Diallo Aïssata sama tante la sama mbokk Haalpulaar la Khalifa Sall la àndal uh-huh. Aminata Diallo ne waaw diggante Khalifa Sall ak Aïssata Tall Sall ay négociation du fa am umpalewuñ dara ñoo bokk benn gis-gis division ñaaw gonek parti socialiste gii di Aminata Diallo yamu ca ndaxte daal dinañ xam le carrément ne seen parti boobee am na ñoo xam ne mbel-mbel wax rek ak ñoo xam ne nag danoo dof ay xelu lambeer la ñu yor benn xel waaye ak yëpp danañu wér réew mi quotidien ne ñi nga xam ne day ñoo ànd ak président Macky nañ koy jàppale daal doy na waar aayaa bi mag satara kurus daa sedd lool lan moo tax ba ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ànd ak président nii mais du ñuy jaay plan Sénégal émergent enquête yéene kaay ne jigéen ñi nekk ca Benno Bokk Yaakaar gay waaw ñoom aji mbir gan kanute ñoom Sara Iyane Thiam waaw ñoom de nee nañu leen lañ dong la ñu bëggal président Macky Sall mooy ñaareelu mandat très bien grand place de président de ba mu demee ca Gossas gay waaw gàttandu nañ ko day ñoo jël kubba ci mobilisation maa la ko wax réew mi quotidien mouvement tous fa avanceur day pétition lañ nar a signaloo nag ca askanu banlieue bële délégué de quartier yaak imaam yaak ñëpp ndax courant mi nga xam ne kon mu ngi fay coupé suba ngoon gu dégg ba ca di xuy xuy xamat xamat pour ñu jox leen ca daal maanaam kon ay gindi Bocar Samba Dièye bëgg na ku ko gindi dee la tey moo yéene kaay ne ne Samba Dièye waaw attaqué na CBAO de mardi Italie waar dañ leen fekk ñuy sangu ñoom ñëpp marti taali la ijax ijallah am na ca genn gone goo ne day ma sàmba ma ko weer de ndekete xale ba da doon sàcc di financer ay faram te góor la de inna lillah la ilaha illallah grand place dellu soir na de ci nan la police ba dajjeekoon réseau boobu bee ma ne dañ leen a bett ñuy sangu laa la wax juróom-ñaar yëpp ay tailleur lañ tailleur machine tailleur dagg ay tailleur allahu akbar dem na Yékini bu ko neexee loo ci libération yéeni kay nee volet bombardier gabari bombardier bi waaw liggéey naa ci bu baax a baax sax lu jëm nag ci wàllum ñi nga xam ne kon dañuy doppeewu di naan ay doom dañ leen di contrôler mootloo ci la populaire nee na nangu man kenn ku ma contrôler ala wax dama bëgg mu leer fii ci lu jëm ci wàllum mystique xar fa fuufa nag xarañ loo Ababacar Mbaye ci libération nee dañ naan ay ñaari millions affaire yooyu waaw ma ne la dañ ciy dépensé kon lu ëpp ñaar fukki millions la la wax ci ay mbirum xar fa fuufa <laughs> alaaji xarfa fuufa rek vingt millions cay xarañ loo non il faut nga wax sa waa koñ nag waa mbuur ñu pare vingt millions xon non alaaji tëjal